ورضوان الله تعالى الأكبر عن العبد الخديم شيخنا ووسيلتنا وخرة عيننا الشيخ أحمد بن بخادم رسول بكي جنا بنو سنتي يلا بوربي سبحانه وتعالى جلتي يرنتم بتد بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دي سانتا سيرن توبا شيخ احمد بن بخادم رسول نيوغي لين دي دي لين زياره di leen baalu àq te di leen baal di ñaan yàlla sun boroom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murid sunu boroom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ma eggali ko ànd kook mbooleem jullit yëpp ak mbooleem taaliba yëpp mbokk yi ñoo ngi am mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di ahlu xasida ngeen di ko ànd ak seen mbokkum moo di caare ngeen baaxoo ko am alxames bu jot fii ci seen site internet mouride point info waaye di ko ànd ak seen mbokkum moo di caare jotaayu ahlu xasida nag comme nu ñu leen ko waxe woon dañoo fas yéene ànd ak yéen di def ay laabirante ci ngëneel li nga xamne khassida serigne touba yi lambo nan ko tay nak ñu fassiyene ànd ak yéen inshallah ci lenn ci màggaayu khassida wala lenn ci ngëneelu khassida ak itam jagle yi nga xamne euh sun borom subhanahu wa taala defal nako ci khassida yi defal nako Serigne Touba ci khassida yi mu nek ay jagle yo xamne ci mbindum Serigne Touba rek lañ ko gis waye dafa melni nekul won ci bind kat yi nga xamne ñoko jitu won kon tay lool mo nek waxtaan yi nga xamne mom lañu lañ ànd ak yéen inshallah Serigne Touba radiyallahu taala anhu dafa waxoon ne warlul na ay talif yo xamne kudul ab yonente di nga ci mën ginde ko warlul na ay talif yo xamne kudul ab yonente rek di nga ca mën a gindeekoo alaya tawaalifu lati yahtadi biha isa sa rabbi xayra man faasa bil wax yi kon day mel ni jàng xasida moom lu gaaw la ci gindi nit ki teg ko ci yoonu siraatal mustaqim te mooy li nga xamante ne noonu la suñu boroom subhaana wa taala bëgg jaam bi mel ba tey mu waxoon ne abda bita lii fi ilaahiyal huda wa kullu man raama hudaahu bi hada sëriñ tuba radiallahu anhu nee na suñu boroom subhaanahu wa taala de feeñal na ak njub ci samay talif suñu borom feñal ak jub ci samay khasida ba tax kep ko xamantene yaangi jàng samay khasida di ci sàkku ak njub sunu borom subhanahu wa taala dem la ko defal te mbokk yi xam ngeen ne ak njub rek mooy li nga xam ne mooy li am solo suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquranul karim ne képp koo xam ne topp nga sama njub doo réer fii ci àdduna waaye ëllëg àllaaxira itam doo fa texee di mukk kon ak njub lu am solo la mooy la muy wax ci alxuraan ne wa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa ba tey sëriñ bi radiyallahu anhu wax ni haraba min sihriya iblis al marid wa bi xasaidiya yahtadil murid mu ne iblis de daw na jëm ci kudul moom sëriñ Tuuba te ci sama xasida yi ci la murit bi di gindiko kon day melni jang khassida mom war tefu bépp murit la bépp murit bo xam beug nga ngaa gindeeku rek tege ci yoon wu nga xamne moy yoonu saraatal mustaqim faw nga nango jàng khassida ndax seigne bi dafa wax ci khassida mi ci la ab murit di di gindeekoo su ko defee it sëriñ bi radiyallahu taala anhu ku ne xamna ne moy abdullah wa khadim rasulih ni mu tuddé bopam jaamu bi yàlla ak katu yonenti bi sallallahu taala alayhi wa sallam motax tax turam woowi dan na bëri lol lu ko dan indi diko feñal ci ak bindam ginaaw bu mu xamlewee ne ku dul yàlla sun borom rek xamo ma xamam dafa wax ne raabat maxaami an siwal bakhil karim bi annani abdun khadim la yarim kon da fay melni sëñ bi mom yàlla sun borom rek mo xam deug deug sëñ touba waye luñu ñu xam ci mom te jàpp ko ci mom moy mom kat jaamub yàlla la won do non itam jëwrinu yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam gis nga ci khasidam ko jalibatul maraqib yaqulu abdullah wa huwa ahmad khadim man sumatuhu muhammad ki wax dal moy ki nga xamne moy mooy jaamub yàlla te moy ahmad banba seex ahmad banba khadim rasul waye khadim man sumatuhu muhammad nek liggey liggéeykatu ki nga xamne mom lañu tuddé muhammad te moy sayyidna muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam moo taxoon mu wax ne suñu boroom moo ko tànn wàccee ko ci mbindeef yi waaye xamal leen ne kii kat sama jaam la waaye liggéeykatu yonent bi sallallahu taala alayhi wa la nazaani min al waral baaxil xadim allamahum bi annanil abdul xadim liggéey boobu nga xam ne moom la doon liggéeyal yonent bi nag euh, lépp mi ko doon defee ci mbindam ci xasida yi dafa melni lolu jagle la bo xamné sun borom subhanahu wa taala ci bopam moko ko jaglél nga xamné mën nañ wax ne def ko doon xaaré sëriñ bi jagle bu reuy bo xamante ne amul kenn ko xamné mas nga ko doon mas nga doon garatu khadimu rasul mas nga ko am motax mu wax ne sakartuhu is khassani bi khidmatil mahisani sani maa ngi sant sun borom subhanahu wa taala mi nga xamné moma jaglél ma doon ab katu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waye nag mu waaye nag mu nekk it loo xam ne yonent bi ci boppam moo ko sàkk woon ci suñu boroom ngir sëriñ bi ñëw nekk ab liggéeykatam comme ni nga xamante ne noonu la waxee ne raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu wa abdullahi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam de moo sàkku ci suñu boroom subhanahu wa taala ngir ma ñëw doon ab liggéeykatam kon day mel ni bi nga xamante ne sunu boroom jox na ko ci ndigal ci la wax sëriñ bi ngir mu ñëw liggéeyal ko mel na ni moom la sëriñ Tuubaa di jinju ci bayit boobu muy wax ne karramani xayrul baraya biktu bi fi xidmati wallaahu yuxli kutu bi yonente bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy ngeen gi mbindeef moo ma teral moo ma teral ne ma bindal di ma liggéeyal bindal di ma liggéeyal waaye wallaahu yuxli kutu bi xasiida yi nga xam ne moom lay bind suñu borom subhaanahu wa la moo koy kawel yëkkati ko ba mu nekk loo xam ne lu kawe la fa suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu day firndeel ne sëriñ bi kat ba muy da caa amoon ndigalul suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ne dem na ba wax ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniya alxadim bi ma wana an mislihi kullu xadim ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne la doon defal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo wax ne képp koo xam ne jàpp nga ne mas ngaa liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam liggéey bu toll ni liggéey bu ma ko liggéeyal mbaa liggéey bu mën ni liggéey bu ma ko liggéeyal man Serigne Touba maa ngi lay xamal ne sa njortu nax na la waaye man maay ki nga xam ne maa ko liggéeyal liggéey boo xam ne kenn mas nga ko liggéeyal ca ña ko jiitu woon te keneen dootu ko liggéeyalaat ci sama gannaaw kon loolu day wane màggaayu mbindum Serigne Touba ndax liggéey bi moy xasida yi bi xormatil mustafa man surtout xaadimuhu bin nazmi wan nasri sajan summa misana Serigne bi nag dafa waxoon ne sunu borom ci boppam subhanahu wa taala moo fa mboolem téere yi nga xam ne ñoo amoon njëriñ yépp defal ko ko ci dënnam waaye jox ko ndigal ngir mu bind jox ko ndigal ngir mu bind te laa fi mom lay wax ne xaada li sadri al alim al kutuba bi kharq adatin wa khala li kutuba kon serigne bi day melni bu muy bind da ca amone ndigalul yàlla suñ borom subhanahu wa taala waye am ci ndigalul yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu it dafay mel ni garaat la bu reuy bo xamne euh grat la bu reuy bo xamne dafay woone màggaayu mbindum sëñ bi nga xam ne li mu doon def ndigalul yàlla la ci amoon ak ndigalul yonent bi ñun murit nag dañuy faral di wax ne lëggéeyal Serigne Touba de lu yomb la waaye Serigne tubaa lëggéey loo la mooy lu jafe te ku ne xam na ne Serigne Touba yàlla moo ko lëggéeyloo yonent bi lëggéeyloo la kon loolu itam mën nañ ne lu jafe-jafe la loo xamante ne dafay wone màggaayu mbindum euh, Serigne tubaa mu dellu wax ne yow sunu borom de danga maa yónni ngir ñent yi danga ma yoni ngir alquranul karim ngir ma leral ko yoni ma yit ngir hadithu yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam ngir ma leral ko waye yoni ma itam ci li nga xamne moy tariikha yi fi nekkon ngir ma leral len waye yoni ma itam ngir xet yonnati bi sallallahu taala alayhi wa sallam ma xamal len sen diine mom la serigne touba di wax ne arsaltani li zikrika alxakimi ولحديث المصطفى الكريم وللمشائخ وللأئمة وذاك غاية المنى والرحمة كون سكو ديفي لولو بوكو نتي ليغا خامني مو تاخون سونو بوروم سبحانه وتعالى اندين ني سيرين بي موي ليغيال يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم تي دين جي موتاخ مو واخني نويتو خدمه النبي بالكتاب وبالحديث زائدا كل عتاب يينا ليغيال يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم ci alquranul karim ak ci hadith kon day melni lolou moy alquran ak sunna moy lu fi andi won gis nga mu wax ne lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu alghara wa inni ahmadu day melni lu ko fi andi won moy yesal sunna si bi sallallahu taala alayhi wa sallam motax mo moo ne ubayinul kitaaba insa al muin ahsana tabyinin yu zahzihu lain bu soobe yàlla sun borom subhanahu wa taala dina leral téere bii nga xam ne mooy téere bi alquranul karim doo ñu wàccee ko ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu ne dana ko leeral ci gën gaa rafetik leeral waaye naka noonu it noonu la waxee ne sunna si yonent bi sallallahu taala alayhi wa dana ko leeral itam ci gën gaa rafetik leeral moom lay wax ci xasida ak muxaddamaatul amda nazafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatahu insaa rabbi ubayinu mu mel ni bi dafa waxoon أحيي علوم الدين بالتaalif wa fustu bil mahfayi wal mahluufi nee na day dundal xam-xami diine waaye naka la koy dundalee ci lan la koy dundalee mooy ci taalif ay xasiida kon day mel ni sëriñ bi lu mu doon liggéeyal yonente bi ci diine ji loolu lépp ci xasiida yi la ko doon defee loolu nag day wone wàccuwaay bu réy bi nga xamante ne xasiida yi am nañ ko ci sunu boroom subhaanahu wa taala mo melni it bi nga xamantene mu ngi bëgg a tàmbali liggéey bi dafa am lo xamne def ko ñaanon sunu borom subhanahu wa taala te moy lamuy wax ne ijal tawaalifi lati uridu talifaha fawzan liman yurid yow sunu borom subhanahu wa taala ma ngi lay ñaan khasida yi nga xamne mom lay fasiyene talif di ci liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wasallam di ci jàngale diine di ci yar taalibe yi na nga ma leen defal ñu nek ak texe ci képp koo xamante ne ni bëgg na ko te di ko sàkku ci moom kon day mel ni képp koo xamante ne euh, yaa ngi sàkku ak texe ci sunu borom subhanahu wa taala soo ko jaaralewee ci jàng xasida yi tey sellal sunu boroom subhanahu wa taala mën na la ko cee defal ngir euh, doole ji nga xamante ne moom la xasida yi am. ba tey sëriñ bi. radiyallahu taala anhu waxoon ne sunu borom ci boppam moo jox ndigal ne ko bindal te laa biire mbindeef bindal te laa biire mbindeef yi mooy la muy wax daxani ilal xatti nasihati lil wara li aj lillezi li xaada ajran wa asanfa kon loolu day dellu siwaat ci li ma waxoon léegi ci ginnaaw ni sëriñ bi ba muy bind des caa ndigalul yàlla ak ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu li nga xam bind na ci ñaar yoy yep ci ñaar yoy lo la dafa jëm ci yàlla suñ borom ak yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam motax sëñ bi bindul lo xamantene dafa génn diine dafa wax ne rafaxtu akhlami mahal midadi lillahi wa rasuli za amdadi daadi yëkkati sama khalima ak sama da jëme ko ci yàlla sun borom subhanahu wa taala ak yonente bi sallallahu taala alayhi wasallam sallam nak nek lo xamne ne suñu borom subhaanahu wa taala defal na ko ci ay leer yoo xam ne duñu duñu duñu dog bu mukk moo tax ne képp koo xamante ne yaa ngi ciy góorgóorlu di ko jàng te di ko sellal lépp loo xam ne yaa ngi ko ci sàkku rek suñu borom subhaanahu wa taala mën na la ko cee defal sëriñ bi dafa wax ne deyaale na ak sunu borom subhaanahu wa taala ci ay téere ci ay xasiida yoo xam ne ay leeram duñu dog mukk naajeytu rabbiyal karim bi kutubin laysa tarim anwaaruha wali yarum ممني دفعون ياسا إلي عن عمل لا ينقطي إلى الجنان خذ ميزاني وانتفع يومي خمنا يا ميلاج جف جو خمنا دعا بق سابو كنيك أي يوم أك أي غني لم دنيو دك ببك من لا خذ ميزاني يا بالكون كي سامي خسيدة سو دفع كون دعا جرينيو كون جان خسيدة مم وارتفو كيف بكو خمنا يانغي ساكو لباخله batay bokku na ci jagle yi nga xamne suñu borom subhanahu wa taala defal nako serigne bi moy serigne bi bi nga xamantene mo ngi bind suñu borom subhanahu wa taala defa leral ab xolam ci leru wahyu leru wahyu moy yu leer gi nga xamne mom lay def ci ab yonent ba nga xamne day yor xol bu leer ak xel mu jub bo xamne dana mën wax ak mbindeef fi ci kenn ku nek fum sam xel tollu euh motax serigne bi wax ne lubbi bi warun bi nuril wahyi waxaada li xayral ulumil muhyi sunu borom moo leeral ab xolam ci leeru waxyu waaye wommatal ko mbooleem xam-xam yi nga xam ne ñoo am njëriñ kon loolu yaakaar naa dafay wone loo xam ne dafay wone màggaayu xasida ba tey bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne xasida yi làmboo nan ko mooy sëriñ bi bu muy bind bind mu nekkul woon loo xam ne nii rek def koy xalaat ci am xelam di ko bind waaye dafa nekkoon loo xam ne def daan toxalee ca lawxul mahfuz lawxul mahfuz mooy fi nga xamante ne foofu la sun borom subhanahu wa taala bind ay mbiram nga xamante ne lépp lu ci fale denc ay mbiram mu nekk loo xam ne nu mu ñaane woon suñu borom subhanahu wa taala ne ko xabliya kaw na xalami yan xalumin min xika yaman li saadati damin dafa ñaanoon foofu yàlla ngir sa buy bind mu am autorisation di toxale ci lawhul mahfuz bim ko ñaanee sun borom sun borom defal ko ko motax mu wax ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fiha nabihun yaxqilu sama bind ci lawhul mahfuz lay toxalo te kep ko xamantene am nga ak yewute wala nga amub xel do ci am len lo xamne yang koy sikki sak kon lolu bokku na ci jagle yi nga xamne ne mbindum Serigne Touba amna ko ndax day melni la tàmbalee ci yonent yàlla Idris mi nga xam ne moo njëkk bind ci kaw suuf ba ci jamono ji ñu toll euh, Serigne Touba rek lañ gis mu nekk koo xam ne buy bind day janook janoog lawxul mahfuz dafa mën a toxalee di bind ci xasida yi loolu jagle bu rëy la boo xam ne xasida yi Serigne Touba yi euh, làmboo nañ ko mu mel ni sax sunu borom subhanahu wa taala dem na ba may ko mu mën a toxalee ci xalima ga la yegg seegul ci lawxul mahfuz moo tax mu wax ne ak tuubu naaxilan min allawxi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin kon loolu yaakaar naa day wone màggaayu xasida ba tey bokk na ci jagle yi nga xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala defal na ko sëriñ bi radiallahu taala anhu ci ci xasida yi mooy sëriñ bi kat dafa wax ne naxwi maal bayaani wal badii mahal mahani jaamin al badii li nga xamante ne mooy naxwu te mooy grammaire ak arut mi nga xamante ne mooy jàngale woy ak bayaan xeeti xam-xam yooyu yëpp sëriñ bi nee na sunu borom subhanahu wa taala moo koy xamal moo tax mbindam sëñ Tuuba lamboo ay ngëneel yu rëy rëy loo xamante ne gisuñu ko ci ñi nga xamante ne ñoo doon taalif ay xasiida maanaam la sëriñ Tuuba waxoon ne xasiidati faaxat xasaa idal kiram wali taxudu abadan xayral maram sama xasida yi ñoo gën a kawe xasida yi nga xamante ne ñooy xasida yi gaa yu tedd ya nga xamante ne am na ay jaam yoo xam ne ay jaam yu sunu borom subhanahu wa taala gërëm lan yoo daan yoo xam ne daan nañ taalif ay xasida di ci liggéey om di ci liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye seen xasida yooyu tamit xasida la yoo xam ne nañu ay secret ak leer sunu borom gërëm leen waaye ànd ak loolu lépp nag xasaa idam yi ñoo gën a kawe xasiday gaa yu tedd yooyee kon lolu yakarna dafa nek lo xamne ne day wane màggaayu khassida Serigne Touba ba tax nañu ñu war cee gën gor góorgóorlu bu baax ba ci njàng mi te diko selal te xamne lépp lo xamanteni julit bi mi ngi koy sàkku ci njëriñul aduna ak njëriñul alaxira rek Serigne Touba neena defal na len ko ci ci sama khassida yi comme nam ko waxé won ci leral bobu mu waxone li ya'lam kullu man ta'allaha bi annani tawajjahtu ila allah tabaarak wa taala bi tawaalif takunu fiha manaafiu almuslimina walmuslimaat nee na képp koo xamante ne dangaa aju ci man xamal ne jublu naa sama borom subhaanahu wa taala ci taalif ay xasida yoo xam ne dana làmboo njëriñul jullit ñu góor ñëpp ak njëriñul jullit ñu jigéen ñëpp kon lépp loo xam ne nit ki mi ngi koy sàkku ci njëriñul àdduna ak àllaaxira rek su ko wutee ci xasida yi suñ tubaay tey sellal suñu borom subhaanahu wa taala mën na ko koo defal ba tey bokk na ci jagle yi nga xam ne wala bokk na ci màggaayu xasida mooy suñu delloo ci alquraanul karim dañuy gis ba tey bokk na ci euh, jegle yi nga xamante ne xasida yi am na ko suñu delloo ci alquraanul karim dañuy gis suñu borom subhaanahu wa taala muy xamle foofu ay taxawaay yu am solo yoo xam ne suñu borom ci boppam def ko taxawee ci mbiru jaam ñi waaye itam mu mel ni yonent yi nga xam ne moom la suñu borom subaano wa taala yónni woon dañoo taxaw taxawaay yooya Sëriñ Tuubaa it ba mu dikkee taxaw taxaw taxaw booba waye khassida yi sëñ Tuubaa itam taxaw taxawaay yoyu lu melni li suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur suñu borom neena mom moy kilifa ak jullit ñëpp moo leen wo waye moy ki leen di génne ci ak lëndëm yobul leen ci ak leer naka nonu it mu wax ne ci alquran huwa allazi yunazilu ala abdihi ayatin bayinatin li yuxrijakum min ila nur sun borom dafa wax fofu ne mo wacce alquranul karim ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ngir yonente bi di ci genné nit ñi ci ak lendeum di len yob ci ak leer nga xamne mbollem mbooleem bi sun borom subhanahu taala ma yónni rek lolu moy nek sa mission moy fexe ba fi yeb deñ ak réer tege ci yoonu siratal mustaqim gis nga ci sourate ibrahim man ko tambalé ci alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan tuxrija annaasa min azulumaati ila kitaabun anzalnahu ilayka mooy téere la boo xam ne daal wàccee nañ ko ci yow yonent yàlla ibrahim li tuxrija naasa mina zulumaati ila nuur ngir nga di ci génnee nit ñi ci ak lëndëm waaye di leen yóbbu ci ak leer te day mel ni suñu delloo ci xasiday sëriñ Tuubaa yi dinañ gis sëriñ bi muy wax ci xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee muharam wa fi safarika mi ngi fay wax ne yuxraju jumlatan li nuurin min zulam xatiya insa allazi mahal alam nee na mbind mi nga xam ne mooy xasidaam yi danañu génnee mbooloo mu takku moo xam ne seen lim kenn xamul ni mu tollu mu génne leen ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer kon loolu waay la boo xam ne da mel ni sunu borom si boppam moo ko njëkk a taxawee yi tamit euh, dikk taxawee ko xasida yi tamit taxaw taxawaay yooyu kon loolu dafa nekk loo xam ne day wane màggaayu mbindum sëñ Touba ba tey xam ngeen ne euh, jullit bi. loolu day wane magayou khassida serigne touba mu melni li nga xamne mom lañuy sonu ci jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla loolu lépp ngeureumal sunu borom subhanahu wa taala moy li nga xamne mom lañ ci sàkku euh te serigne touba radiyallahu taala anhu dafa ñaan sunu borom subhanahu wa taala ne ko ijaal xurufiya li wajhika al karim akbar ridwanika bisran la yarim yo sunu borom ma ngi lay ñaan batay bokku na ci ngeeneelu khassida yaakaar ñun ñi nga xamne ñoy jaamu yàlla ñëpp. lu sàkku ci jaamu yàlla gi moy am ngeureumal suñu borom subhanahu wa taala te sëriñ bi ñaan na suñu borom subhanahu wa taala ne ko defal sama khasida ñu nekk ngeureum lu gëna mag ci yow ijhal khurufi li wajhika al karim akbar ridwanika bisran la yarim bi ko ñaané suñu borom suñu borom subhanahu wa taala defal ko ko ndax xam ngeen na lépp lu ñaan yàlla fekk na laata muy nopi rek suñu borom defal na ko ko moo tax feneen muy ne kitabati ja'alta akbar ridan ladayka khad xad waxeeta ni ridan yow suñu borom yow mi ma fegal lépp lu dul sa ngeureum jël nga sama mbind muy sama xasida def ko muy ngeureum lu gëna mag ci yow kon day melni kep ko xamne yaangi sak ngeureumal suñu borom te diko jaare ci xasida yi tay selal suñu borom subhanahu wa taala man na la ko defal ngeureumal yàlla euh dañu faral di wax ne aljana lamuy neex neex ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala moko gëna kawe comme niko alquranul karim andé kon lolu day magga yu xasida su ko defé ñoo ngi yemandi fofu inshallah ba beneen alxames ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala di ñaan sunu borom mu defal ñu dégg ak topp ba ngëneel yi nga xamante ne sunu borom defal na ko sëriñ bi ci xasida yi ñun ñëpp ñu mën cee jariñu ci incha allah.